yaayam yónni seede xanaa la nekk te itam ki nga xam ne ni gërëm ko te ngërëm la loo xam ne ngërëm fabriqué bu ñor bi ngeen àdduna ku ko wax ci moom la baax te ni nga mel tegtal na ni sa doom kanam sa baax sa xam sa bopp sa xam sa valeur xam ni nga njaboot ba yàq sa doom wala ay jëm dëgg lan la nekk lu jot ci seraat bu ko defee rek Alexandre yaay sànq bi ñu nekkee ci almeri sëñ Xaadim Awa Ba mii def lu raar lu tumuraan woo doom yi nga xamante ni muumi moo leen jur ñu bëggaan amal xale yi ñetti gën mu ne kenn ki toogal ci tànk yi ki ci des nekkal ci digg bi ni ki ci des demal ci bopp bi yéen ñett kenn ku nekk na def fukki lixlaas ak benn ni leen ñaan bu ne mën naa tax ndax ngërëm ak ñaan bu mu def ngërëmu buggaan du takk waaye ñaani ay doomam duñu takk ndax yonent bi ko wax isa maata ibnu adama in xataa amaluhu ila salaasa boole na ci li li mu sant xale yi sant wala dum saalihun yad'u lahu ay doom yoo xam ne amul bàkkaar tollaguñ ci am bàkkaar waaye yar bi leen seen wayjur yar ci dal seen wayjur bu góor ak bu jigéen ñu mën a tiim seen wayjur bu jigéen ñoom ñett rafuñu doonte gi dañu tumuraanke ci xel waaye kenn ku nekk toog jàng faatiha fukki lixlaas ak benn bu ne ànd ak bismillaahi rahmaani rahiim ñu yéene ko seen wajur ci biir bàmmeel ndax Abdourahmaan dafa waxoon ginnaaw dee dara amatu fa yaa xawfu maa lii amee mawti saani mu ne mu dee dañ leen a koy wax yaa taxaw bi nga taxaw a rafet na koy jot ci yàlla yàlla sutura ko defee a ay bokkam moom mi ñu bay bay pex na la ñu fay la ñu fay rafet ndax waaye bu rafet def na ko waaye opposition bi waaye opposition bi kenn desul kenn desul Malick Gakou Malick Gakou Ahmed Aïdara Déthié Fall Déthié Fall ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñëw nañu Decroix Diop Decroix ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ko Thierno Boucco ñëw nañu ànd ko ak Bougane Assane Diouf mi ngi taxaw moom itam Assane Diouf Maga ak ñoom yëpp a ñu dellu si bay bay def ne ñëw ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu taxaw ñu taxaw taxaw bugaan taxaw bugaan ànd ak moom ànd ak moom ñoom itam sant nañ leen ñoom itam opposition bi tam baara gay baara gay taxawaayam taxawaayam rafet na lool waaye rafet na lool loolu sax yàlla ku ne xam na baara ku ne xam na baara digganteel digganteel ak bugaan ak bugaan moo papaal muy papaal moo papaal moo papaal ami boutique taxaw nañu lool sant nañu leen bu baax yàlla yàlla fay baara baara baara baara taxawal pour ñu yàlla fay taxawal ko taxawal gis ko daanaka ren mooy sax tuur na di def ay témoin ci muur sànq maa ngi wax ci imaam am na yàlla yónni seede wala dara te yar isa bopp ba tey jéem a dëkk yàlla nekk njort seraat bu ko defee rek Thank you. ma ne sànq yaa ngi tudd sànq bi ñu nekkee ci almeri seen xarit awoon ba muy def lu raar lu tumuraan woo doom yi nga xamante ni muumi moo leen jur ñu a ana xale yi ñetti gën mu ne kenn ki toogal ci tànk yi ki ci des nekkal ci digg ni ki ci des demal ci bopp bi yéen ñett kenn ku nekk na def fukki lixlaas ak benn ni leen ñaan bu ne mën naa takk ndax ngërëm ak ñaan du ñu benn ngërëmu bugaan du takk waaye ñaani ay doomam du ñu takk ndax yonent ci benn wax isa maata ibnu aadama in xataa amaluhu ila salaasa boole na ci li li mu sant xale yi sant wala dum saalihun yad'u lahu ay doom yoo xam ni amul bàkkaar tollaguñ ci am bàkkaar waaye yar bi leen seen way jur yar ci dal seen way jur bu góor ak bu jigéen ñu mën a tiim seen waajur mu jigéen ñoom ñett rafuñu doonte dinañu tumuraanke ci xel waaye kenn ku nekk toog jàng faatiha fukki Ixlaas ak benn bu ne ànd ak bismillaahi rahmaani rahiim ñu yéene ko seen waajur ci biir bàmmeel ndax Abdourahmaan dafa waxoon ginnaaw dee dara amatu fa yaa xawfu maa lii amee mawti saani mu ne mu dee dañ leen a koy matu yàlla taxaw bi nga xam ngay rafet na koy yóbbu ci biir yàlla yàlla sutura ko defee rek moom mu ngi ñu bàyyi bay pex na Lamine Faye Lamine Faye ñëw na moom itam taxawaay bu rafet taxawaay bu rafet def na ko waaye opposition bi waaye opposition bi kenn desul kenn desul Malick Gakou Malick Gakou Idriss Aïdara. Ahmed Aïdara. Déthié Fall. Déthié Fall. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. ñëw nañu Decroix. Diop Decroix. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. ñëw nañu. ñëw nañu ànd ko. kenn ko kenn ku ko. ñoom ñëpp ñoom ñëw nañu. ànd ko ak Bougane. affaire bi ñu ko liggéey taxaw moom itam. ak jumaa ja. ak léegi ba ñu dellu si bay bay def ne ñëw na. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp ñu taxaw ñu taxaw. taxawu Bougane taxawu Bougane ànd ak moom ànd ak moom ñoom itam sant nañ leen ñoom itam opposition bi sant nañ leen baara ngay taxawaayam taxawaayam rafet na lool waaye yi rafet na lool loolu sax yàlla ku ne xam na baara ku ne xam na baara digganteem digganteem ak Bougane ak Bougane moo Fapal muy Fapal moo Fapal moo Fapal ami boutique taxaw nañu lool sant nañu leen bu baax maanaam maanaam maanaam xool xool pour nga jaajëfal ndax war na ko taxawal gis nga daanaka ramoon sax tuur na di def ay témoin ci muur sànq maa ngi wax ci jumaa sonn na ko bëgg a wax waaye may lu tax yàlla yàlla sax sa baax yàlla yàlla suñu baax doo ko wax sa waaye ñu la koy Cariyo rek mais sama mu nuyoo waaw. trois heures du matin cinq heures du matin tardé waat la mu ngi la ne ma ko def des fois yow itam ay mbay yi ngeen añoo dafoo dar saa yu jotee rek nga nëpp mu gën a mel ni ñu sagal leen doo sonn doo toog doo yaa ngi ci yàlla loolu la ñu ñaan ku nuyoo ko mu taxaw ku nuyoo rek mu taxaw dama ne ñaan ku nuyoo rek nga jàll ku nuyoo rek dem si ngeen liggéey ak si ngeen sawar waxtaan ba si ngeen liggéey si ngeen sawar waxtaan faju fa ku nuyoo rek mën ngaa def te yàlla tax Thank you. ñoo ko bokk ñoo koy masawu yi awa baal yi nekk waa Pikine ñu mën baal yi aywa maa ngi ñaan ku jàll rek mën naa war mën na jàll saa yu taxawee rek mu am bu soxla maa ngi ñaan benn avance bu ñu taxaw waaye bu ñu taxaw bu ñu taxawee rek dina def ko sonn loolu bu ñu taxawee rek dina def ko sonn mais sax ñi ci ginnaaw bi ñëw. Baye Mbaye nee na Alaaji Dia ambassadeur Alaaji Dia ñëw na moom itam jóge ba Bambey ñëw Dianes dafay kenn ci Bougane yàlla rek man lay ñaan nga jàpp taxaw rek daanaka danga indi bu sama ba ñu ci ginnaaw bari nañu lool ñëpp bëgg na jooy yàlla rek man lay ñaan nga jàpp ñu mën a def waxtaan ndax ñu ngi koy ñu war a sànni kan ku mën ni tam benn baat maa ngi ñaan ku jaale rek moo taxaw ku jaale rek maa ngi lay ñaan nga bañ a taxaw ndax ku taxaw rek daanaka mu soog yaa ngi suñu ko moo doon jaale léegi jigéen ko xam du lay fay feex mboolem maa ngi ñaan mu jaarale nga jaar mu jaarale rek mu taxaw yal na baax ci kan li jaarale ngay wax ñu ne la si biir sa wàll mu taxaw rek dara nag ku jaarale rek mën nga jaar ku jaarale rek mën nga jaar ku jaana rek bul taxaw boo deewoon dee ci di bu soxla boo jaana sante rek ñu ci ginnaaw rek Thank you.

maa ngi ñaan ngeen ma mënee tëjal foofu rek ngeen tëjal ma ko tuuti rek dafa am ñu ne ko bu bëgg a sànni dara ndax boo waxee am na ci ñu mel ñu war a yëwee maa ngi ñaan ngeen tëjal ma ko tuuti ma ne leen transport sànni dara. Bara Diouf biye wara ko baara ko ci tango jaale rek su jaale rek man lay ñaan la rek su jaale taxaw rek encore c'est normal baal maa maa baal ma yoon su ma démb la c'est normal c'est normal c'est normal. nekk kenn moom itam ndeysaan ci moom moom itam dama woo lu bari.

ku jaale rek na nga mu toog ndax ci suba ba tey mu ngi wax. ñu ngi ñaan ku jaale rek nga jàll maa leen ko ñaan ndax kilifa yi dañu bëgg a sànni kàddu kilifa a maa ngi leen di bàyyi leen ndax mayu ko dem maa ngi ñaan ngeen tëjal ma foofu bu ngeen ko tëjee rek sécurité bi jàpp leen nekkul woon nit moom suñu soxla yi dafa war a rek. ki ñu taxawoon ki ñu taxawoon taxawaayu ndey. taxawaayu ndey ak doom ak doom. boo ko bindee. boo ko bindee mu tontu. mu tontu la boo ko waxaalee. boo ko waxaalee mu tontu la. tontu la bu la gisul. bu la gisul laaj ka laaj ka la kooku. kooku moom la ñu nekk. nga xam ne ñii yow la ñu am. waa seen jigéen ñi ñëw. bu ko defee may leen rek. wuy ma may may yi waa seen ji bi ñuy dem nee na ay saa bi moom barakallahu maa ngi noonu ñoom ñëpp ñuy jaale tey ñuy jaale tey moom mi rek la ñu miin. moom mi rek la ñu miin. moom mi rek moo ñu taxaw. moom mi rek la ñu moom mi rek. moom na yàlla fay. yàlla na yàlla fay. moo tax moo tax. groupe des médias yëpp. yëpp. ñëpp ñëw na. mu daal di jooy tuur rangooy. gis nga ñuy ñëw nañu. Sya Dia taa ngi noonu tabaarakallaahu Saliou Koule ñoom ñëpp madame la maire. Euh, góor gi kenn desul ñenn ñi ñu ngi ci télé ñoom Fane Diallo ñoom Seyda Absab ña nga woon tabarakallahu di àndante ak nit ñi di leen jàppale nga xam ni li bàyyi mooy soo wax léegi moom dogal na moom nekkul woon rek patron suñu diggante ak moom waaye yaay la woon ñuy ñaan rek ku ku ku joxe loxo mën nga bu ñu taxawee rek mu def doucement dañuy ñëw xaw a sakkan bu joxee loxo rek mën nga jàll tabaarakallaahu waa topp waa direction Noël Dieng sama papa lay fay fex leen dañuy sant Noël Dieng Noël Noël ak seen dënn waaye itam la Noël Noël bu métti lu dugal bu wér leen dugal ñoom maam jaara ngi ñëw na caab tabarakallahu ñoom ñëpp jaale ngeen waa d'accord ñoom ñii ñëpp bokk ci seen TV Pape ñoom maam Mbaye Dioumane ñoom yaay Kiné Lam ngi ñëw na tabarakallahu moom itam suñu yëpp dëgg bi rek dañuy rajo bi ku woote rek tabarakallahu tuur nga randoo am na ñoo xam ne sax xamuñu moom ñu ko gis waaye dañuy dugg di jooy dégg mbaax gi ñuy wax ci moom di duur lu bon tey yëpp tabaarakallaahu ñëw na baaxam am suturaam am kersaam waaye borom kër gi tamit jàmbaaram nekk ak soxnaam lu ci war ba alxames su tey mu jëfal ko borom yàlla bu yaakaar yàlla na ko ci barke Seydina mu jërëm dama leen di gërëm nag soxna jaaga soxna lii lépp lii yëpp ci muunu ci muunu layam rek ko ci def layam rek moo ko ci def ak coon bàyyam bu baax ak coon bàyyam bu baax ba waaye jaag waaye jaag taxaw na bugaan taxaw na bugaan deful bugaan ko deful bugaan borom ab taaw la ko def ab taaw la ko def balaa wax ak njabootam balaa wax ak njabootam wax ak bugaan wax ak bugaan ni maam mbay mi noonu yàlla na ko yàlla fay ñoom yaasin yàlla na ko yàlla fay ci taxawaayam ci taxawaayam ci njabootam ci njabootam njaboot gii njaboot gii mu ñu bay mu ñu bay yàlla na leen jàngal taxaw yàlla na leen jàngal taxaw bëggoon wala seen lay bëggoon maa ngi ñaan bu gën taxaw bu ngeen taxaw bu ñu taxawee rek day am circulation. masa masa dafa songo de. ñu mën koo def si ginnaaw ma xam ne sa doom yëpp la nekk. bàyyi ma ñëw gërëm nañu ñu. ndax ñu lay taw dañu ko askan wi. gërëm nañu ko dina baax liggéey nga loo xam ne. donc donc jigéen boo ko yóbboo ci kër. boo ko yóbboo ci kër da nga koy sëy da nga koy sëyloo. ñu ngi ñaan ngeen dox bu ngeen doxul rek ku soxla ñoom ñoo ngi ñaan soxna si soxna si yow mi taxaw soxna si waaw da ngeen di dugal taxaw rek mu def ku soxla ñu ngi ñaan sang ñoo ngi ñaan ku taxaw tuuti rek da ngay def ku soxla ku nuyu rek mën nga am am ah waaye bay peex mu doon wax suñu yaay jaana waaye dañu bëgg rek ñii wàññeeku bu ñu mënee fàq ko suñu sax yaay jaana teewul waaye dañu bëgg baari ndox bi taxawaay bi métti na ci moom. moom it bu ñu jeexee rek ñu waxtaan ah bu ñu jeexee ñu waxtaan. voilà bu ñu jeexee rek nit ñi may tuuti bu ñu bëggee topp nit ñi rek. déglu nag sëriñ Bas Sali awa ba nga xam ni tey sagal nga sagal nga kuy doomu soxna. bu doon nee nag ñu yeewu ko mu yeewu ko moom itam yàlla na yàlla guddal safara. tey tey tey sagal nga lislaam sëñ bi sëriñ Basiru Mbàkke mu Seex Abdul Xaadir incha allah bu neexee yàlla ëllëgal jàmm dana ñëw moom it bu ko defee ñëpp toog papa yaa ngi nekkoon ci ay gaar sant ko rek waaye mbay nee na sant ko rek gërëm gërëm donc donc boo ko juree boo ko juree ba yàgg na nga koy yar ba fu mu dem ba fu mu dem man faa man faa ne waaye ni nga taxawoo bugaan waaye ni nga taxawoo bugaan waajuram sori waajuram sori ma nga ca Ndar ma nga ca Ndar waaye jàngaa fi nekk waaye jànga mbir moo fi nekk moo taxaw bugaan moo taxaw bugaan moo jàppale moom moo jàppale moom ñu bëgg nag ñu bëgg nag seen Basiir sëriñ Basiir sànni ñuy kat sànni ñuy kat su ko defee rek su ko defee rek moom it ñu yeewi ko moom itam ñu yeewi ko ci suba ba léegi suba ba léegi ma nga fa ma nga fa Mbacke gërëm nañu li nga def tey li nga def tey sëñ Baara sëñ Baara ak sëñ Modou Moustapha ak sëñ Modou Moustapha ñoo bokk ñoo bokk sëñ Touba sëñ Touba ak soxna Aminata Lo ak soxna Aminata Lo tey tey buy mbind buy mbind ak Daaru Xudóos ak Daaru Xudóos moom nga taxawal moom nga taxawal buy mbind buy mbind ak Daaru Xudóos ak Daaru Xudóos ñoom nga jëmmal ñoom nga jëmmal waaye waaye sëñ Moussa Mohamed sëñ Moussa Mohamed jëpp yu moom yi de jëpp yu moom yi de bi mu mujjee Ndakaaru bi mu mujjee Ndakaaru ci këram lañu ci këram lañu yal na yàlla fay yal na yàlla fay Thank you.

yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay ñu ñaan rek ñu ñaan rek ku ko baal itam gis nañu ko sant tabaarakallah ñaan ñëw na itam ànd ak comme comme Youssou Ismaïla Lo itam léegi dem na Tamsir soxna itam ñëw na ci délégation bi li ma laal ku ne xam ne ni mu mel ak bugaan tabaarakallah waaye tamit di jaajëfal ñooñu kenn leen mën a ndax njëkk leen ko muy délégation bi ko ndax ñoom ñooy sa sa te jàll yàlla yaakaar naa si a a ne ni yàlla yàlla ko def sa fan ba gëm sa bopp Touba itam yegg si nañ bi ñu ko yëgee gëm sa bopp mooy tali ñoom itam ñoom lañ di ko jël ci ay masaar gëm sa bopp asalem diwaan masaar seen itam ñoom ñëpp ñoom lañ gëm sa bopp Pikine ñoom itam ñoom lañ représentant am na ko bëgg ci ci kanam Papa Mbaye Diène yàlla na léegi di gën a di moom te li mu jaay bu ko defee rek may ñaan su jàllee mu jàll doon sa bët tees di tax ma leen ni nuyu seen délégation ñëw na waaye bu jàll rek may ñaan rek bu ñu jàmm sax te taxaw lu yàgg taxawaay bi mu taxaw tey dafa mel boo xoolee ni ba tey nelawul bu ko taxawaay bi di gën a métti tey tamit lu mel nii mooy aar ak baax ginnaaw baax ginnaaw ak suba. gis nga muy noonu. sëriñ Thiam di Fambaye. moom itam bàyyi ko bitim réew mi ngi ñëw di waar ak laam. yàlla rek mbokkam. mbokk taalibe aji bu gàtt daal tabarakallah. Papa Abdoulaye Mbaye dañoo bëgg nag yéen a sëriñ bi. Sëriñ Basiru Alaji Bamba. am na yow sept cent mille tuuti la sam tuuti waay. man de moom laa ko miñaale. Sëriñ waaye waaw barke Cheikh Issa Dieng yow def tey lii nga def tey a jullee mën a ndax kii doomi sëñ Mbàkke soxna loo ki woon nit moom suñu soxna yi ma wala rek ci lu taxawoon ñu taxawoon taxawaayu ndey ak doom ak doom boo ko bindee boo ko bindee mu tontu boo ko waxaalee mu tontu bu la nekk bu defee ne may leen rek loolu daal di doxal doxal doxal dañ ko bàyyi wala doxal doxal ay ay yàlla doxal rek ne ko waaw wuy ma may may may leen ñii waa seen TV ñooy dem moom di ko ñaan nee na ay saa ngi noonu tabarakallahu maa ngi noonu ñoom ñëpp ñuy jaale tey ñuy di jaale tey moom rek la nu miin. moom mi rek la nu miin. moom rek moo nu taxaw. moom mi rek moom mi rek. moom mi rek moo nu jàppale. nu jàppale. yàlla na yàlla fay. yàlla na moo tax moo tax. groupe yëpp. ñëpp ñëw na. ñëpp ñëw na. kenn des kenn des dafay boo kii mën a micro rek. ndeysaan ñëpp madame la maire. góor gi benn desul ñenn ñi ñu ngi ci télé ba ñoom Fane Diakha ñoom Seyda ak Sab ña woon foofu tabarakallahu di àndante ak nit ñi di leen jàppale nga xam ni li may mooy soo wax léegi nag mu dogal na moom nekkul woon rek patron suñu diggante ak moom waaye yaay la woon. ñuy ñaan rek ku ku ku joxe loxo rek mën nga bu ñu taxawee rek mu def bouchon dañuy ñëw kaw a sakkan bu joxee loxo rek mën nga jàll tabaarakallaa moom garaan bi noonu waa dopp waa direction Noël dégg sama papa Abdoulaye Faye bi def nee na dañuy sant Noël tey Noël Noël ak jëm jëm ay itam dem na. nawet. ku jàppale bu la. nawet. ku wéttali bu baax. ku wéttali bu baax la. ñoom maam ngi noonu Thiam tabarakallahu ñoom ñëpp jaare ngay waa d'accord ñoom ñii ñëpp bokk ci seen TV Pape. maam Mbaye journaliste. ñoom yaa ngi gis mu ngi noonu tabarakallahu moom itam ku yëg dëgg dañuy rajo bi ku woote rek tabaarakallahu tuur nga naan loolu am na ñoo xam ne sax xamuñu moom yi mosuñu ko gis waaye dañuy dugg di jooy di dégg mbaax gi ñuy wax ci moom di tuur ngoy day yëpp tabaarakallahu ñëw baaxam am suturaam am gersaam waaye borom kër gi tamit jàmbaaram nekk ak soxnaam war ba alxames su tey bi mu jëfal bu yaakaar yàlla na dund ca barsax Seydina mu jërëm waaye mel jaaga soxna yaay jaaga nii lii ci muum rek ko ci def ndayam rek moo ko ci def ak coon bàyyam bu baax ak coon bàyyam bu baax ba waaye jaag waaye jaag taxaw na bugaan taxaw na bugaan deful bugaan borom deful bugaan borom ab taaw la ko def ab taaw la ko def balaa wax ak njabootam balaa wax ak njabootam wax ak bugaan wax ak bugaan bi maam bay bi noonu yàlla ko yàlla fay ñoom yaasin yàlla na ko yàlla fay ci taxawaayam ci taxawaayam ci njabootam ci njabootam njaboot gii njaboot gii gi moo ñu bay gi moo ñu bay yàlla na leen jaaga taxaw yàlla na leen jaaga taxaw sëñ bi bëggoon seen lay bëggoon maa ngi ñaan bu kenn taxaw bu ngeen taxaw bu ñu taxawee rek day am seen place. masa masa mën koo def mën koo def mën koo def. waaye mooy ñoom gërëm nañu ñëpp. jaajëfal laay taal léegi parce que gërëm gërëm nañu ko. liggéey nga loo xam ne. donc donc boo ci kër. boo ko yóbboo ci kër dañ koy sëñ da nga koy sëñ loo. ñu ngi ñaan ngeen dox bu ngeen dox nañ ko soxla ñoo ngi ñaan soxna si. yow mi taxaw waaw dañu ngi dugal taxaw rek mu def pour ñu ngi ñaan sang ñoo ngi ñaan bu taxaw tuuti rek da ngay def pour son bu nuyu rek mën nga avance ah day bay peex mu doon wax suñu yaay jaaga waaye dañu bëgg rek ñii wàññeeku bu ñu mënee waaye bay peex li mu yor na bëgg naa ko dégg bëgg na yaay jaaga bu ko defee bëgg na xolu bi métti na ci moom boobu ba léegi ah bu ñu jeexee ñu waxtaan. voilà bu ñu jeexee rek ñu may tuuti bu ñu bëggee topp nit ñi rek déglu nag sëriñ Ba Sadi Awa Ba nga xam ni tey sagal nga sagal nga kuy doomu soxna. bu doon nee nag ñu yeewi ko ñu yeewi ko moom itam yàlla na benn bu dee safara tey tey tey sagal nga lislaam sëñ bi sëñ Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdou Khadim inshallah bu neexee yàlla inshallah bu neexee yàlla la nga jàpp dana ñëw moom it bu ko defee ñëpp toog papa yaa ngi nekkoon ci ay jaar sant ko rek Baye Mbaye nee na sant ko rek gërëm gërëm doom doom boo ko juree boo ko juree ba yàgg na nga koy yar ba fu mu dem ba fu mu dem man faa man faa ne waaye ñu nga taxawoo bugaan waaye ñu nga taxawoo bugaan waajuram sori. waajuram sori. ma nga ca Ndar. ma nga ca Ndar. waaye jaaga fi ne. waaye jaaga mbir moo fi ne. moo taxaw bugaan. moo taxaw bugaan. moo jàppale moom. moo jàppale moom ñu bëgg nag. ñu bëgg nag seen Basiir. Sëriñ Basiir. sànni muy kat. sànni muy kat. su ko defee rek. su ko defee rek moom it ñu yëngu ko. moom itam ñu yëngu ko. ci suba ba léegi. ci suba ba léegi. ma nga fa. ma nga fa. Mbacke gërëm nañu. Mbacke gërëm nañu la. li nga def tey li nga def tey sëñ Baara sëñ Baara ak sëñ Modou Moustapha ak sëñ Modou Moustapha ñoo bokk ñoo bokk sëriñ Touba sëriñ Touba ak soxna Aminata Lo ak soxna Aminata Lo tey tey guy mbind guy mbind ak Daaru Xudóos ak Daaru Xudóos moom nga taxawal moom nga taxawal guy mbind guy mbind ak Daaru Xudóos ak Daaru Xudóos ñoom nga jëmmal ñoom nga jëmmal waaye waaye sëñ Moussa Mohamed sëñ Moussa Mohamed yëpp yu moom yi de yëpp yu moom yi de bi mu mujjee Ndakaaru bi mu mujjee Ndakaaru ci këram la ci këram la ñëw yal na yàlla fay yal na

barke si yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla fay leen